jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del suet ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam Sonaada seexu yàlla bi xam ngeen ko xam naa ko suñuy émission bu mujj Sonaada defoon na ay révélation yu doy waar bu ñu delloo ci ginnaaw dañu woon nañu jënd ay nag yóbbu ko ci tefesu tefesu géej gi dina tax dee yi am ci émigration clandestine bi mën a wàññeeku kenn gëmu koon waaye ñu gis bi mbir mi amee mbuur nag bu jigéen taxaw ca buntu tefes ba di jooy loolu am lu bëri lu mu lu mu firndeel wala lu mu leeral réew mi nag politiquement commencé na jaxasoo opposition bi def nañu benn bloc bu yaatu Khalifa Sall na Bocoum Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany mu génn na yàq Ousmane Sonko lu mel ni xeme dossier Adji Sarr mu ngi raam yooyu yëpp dinañu ko waxtaanee maire Pastef soxna aada buur a ngi lay nuyu te bu ma ci dépassé nag damay laaj ngay tontu إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمال الناس والصلاة والسلام على نبي المهتدى الخائن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بور مسلنا ci seytaane ba pare mën nañoo commencé bismillahi rahmani rahim dama wax rek sànni ah kon alhamdulilah kon bu dee li ma la wax eh, defal lépp évaluation déglu ko. opposition bi créé nañu lu rëy. waa mais sëñ Bour guddi yee ñu génn neewoon naa la politique bi fan yi dina jaxasoo. dina yëngu. ni la kaso yi ubbi tamit nañ ko ubbi. Eh, te yaatal ko balaa ñu dem élection ñu ci bari dañ leen sëñ Bour ëlbatiku ne la géej gi. daa mm-hmm. am nombre nag yu fa war a dem. Mm-hmm. ma ëlbatiku ne la soxlaalu ma leen dara. ki ñu tëj cib kaso nga di ko ñaanal bu génnee kaso te yaakaaroo ca dara mhm. kon wàcc nga mhm. yàlla taxoon ngay def mhm. waaye dama ni deret yi ma gis ak ñii nga xamante ni war nañoo dee ci ndox mi loolu yegg nañ ca ak ñi nga xamante ni dinañ rey nit nga laaj leen li tax ñu ne xamuñu sax li tax ñu rey xamuñu lu tax man leen parce que seytaane yi fi mu nekk nii ak jinne yi dañoo toogul benn bërëb ñooñu faaw ñu dalal leen Mhm. jamono ngi ñëw boo demee ci samay vidéo ya ca ginnaaw woon naa la mhm. sëriñ si ci ndakaaru des na tuuti dootoo gis sëriñ di ñaan nga laaj ma li tax mhm. mani la dafa am mbir moo nga xam ne wàllu xam-xam bu ñuul la te ci jamono yi Macky Sall lañ ko fi defoon ku nekkul woon borom bopp wala ngay borom baatin doo too gis te loo waxati nit du ko gis waxoon naa la ko wala waxuma la ko boo demee ci samay après vidéo di nga ko gis malbati góoti ne la fii sëñ buur nga ne maa man la kii di aada faas mhm. soxnaam si mu tax seen diggante dina dem ak du dem wóoruma mhm. waaye dama gis euh, sëy bii mhm. seeni diggante ñoom ñaar ay tolof tolof dina ci bëri lu muy dugg ci kaso yi dina bëri lu muy am problème dina bëri donte bii euh, jéggal nañ ko waaye sëñ buur loolu boo delloo ci samay vidéo di nga ko gis dëgg la du may bëgg di waxantu du may bëgg di mënantu du may bëgg di jéemantu ndax nag ku ne xam na ni jigéen ëpp jom te it cër bi sunu borom di may góor yàlla yi teggin na ma ci ba ma am ci ba doyal kon duma dugg ci lu ma xamul te du wax lu ma xamul sëñ buur dama laa bëgg a xamal ni la man ku dul Sonko ak jomaay ñoruma waaye nañu yërëm askan wi mhm. sëñ buur sànq ci suba am na ndaw su may waxal mun ma Soxna Adama ko am mu ni ma est-ce que ñu wàccoon fi Macky sàll gënul woon. Mhm. ndax lu mu dee dee dee ñu daan nañ def toq-toq ndax toq-toq gën yuréet ni tekk mhm, waaye man mani mhm. man Soxna Adama ñoom Ousmane Sonko mani réew mi na xéewal yi xaw a wàcc tuuti ndax am na ci ñoo xam ne gëj nañoo añ te gëj nañoo reer. dëgg la waxewuma sama teeyaay baqan yow moom say wax waxuma ko. yow da far. man faruma kenn man dëgg képp a ma ñor ndax kat soxna aada du toog ci këram di danki ceebam am ñoo xam ne ñamuñu. Hmm. loolu àttanu ma ko. est-ce que législative yi di ngeen gagné. te nag sëñ buur. Hmm. coow lii nga xamante ne amoon na ci gàmmuk Aziz Ndiaye yow doo ci wax Aziz sa xarit la. ma dégg ci façon bu ne sangu-sang yi ku koy ku koy ku koy ku koy. Euh, gàmmul hmm. loo ci def doyul. ak xëru ko waral. ak xeej. waaye ñu ciy wax ci Ousmane ci Oustaz Modou Fall. Mhm. yaakaar naa ñun ñëpp dañuy defar te kenn yàqul. Mhm. Oustaz Modou Fall ñu ñëw ca gàmmu ga yaru leen juru mhm. leen. moomu leen jëndu leen leer na. ndegam jëkkër ak jabar da ngay dañuy takk sa soxna te fekk ne yaroo ko xamoo jikkoom ñu dénk la ko. nga cay jaayanti di ci ëlbëti ba keroog ngay am li nga bëgg wala bant ba damm. dan la xalekat boo koy jubbanti ci bi muy tuut tànk lay doon waaye boo demee ba mu dëgër boo jubbantee mën naa dam mm. ah côté bi ñuy waxee mooy rafetluwuma maa tey ki ah soo déggee ma wax la man bu ma bu ma defee fii alcool damay def fee bétadine xooluma mm. lu neex nit mm-hmm. euh, bu ñu waxee ni euh, guddik sang-sang yi lu ñuy tudd sangu-sang yi ak di wax ci yàlla ak diine moo gën a gën mm-hmm. waa ndax am na ustaas yoo xam dañuy taaral bis dañuy taaral jëmm ba dañuy topp waxtaan wi ba nga xam dañuy dugg ci yenn yi mm-hmm. waaw te kiy defar du yàq yaa ngi dégg mm-hmm. waaye fi mu ne nii ci réew mi fi mu toll mm-hmm. euh, yàq gi buñ ko mënee wàññi te dimbali néew yi doole yi soxla nan ko mooy li gën sëñ buur damay toog fii nit damay woo nit ci tàkkul këram ñetti fan am na bis ma dem clinique dégg koo xam ne benn femme ko fa indi mi ngi naan ko sama doom ju jigéen ji ñaari fan lekkul wa bu amul yàlla naa faatu kon ñàkk gi daa tas comme ñàkk gi daa tas nag na ni melokaanu melokaanu jullit hmm. jullit dëgg day dimbali ñu ñàkk jullit dëgg day dimbali ñu sonn sëñ buur hmm. li ñu am néewoo bëri buñ ko xeeb nañ ko tas du ma ni nekkuñu ci de hmm. ndax lañuy def ci lu baax duñ ma ko biral duñ ma ko fesalal Oustaz Modou Fall it la muy def ci ak yiw di ko terale ay doomi aadama yi ñàkk ak la muy liggéey ci diine ndax képp koo xamante ni tabax nga école mooy tabax nga àdduna mhm. kon dañ ko ci sant di ko gërëm al umul madrasa waaye ña nga xamante ni sëñ bu dañuy dem ci wàllu lu mel ni gàmm wala màggal képp ku cay dem sunu boroom dafa rafet bëgg lu rafet mhm. waaye nag jigéen day yiw buy dem ci yenn bërëb yi loolu maam ngay gaar waale waxuma lool de sëñ buur xam nga nag saan yow boo mënee boolee Sonko ma ki Sall ba ni mu demee mu demee ne coow li fi am yëpp ba bu ñu bu bu deret daan tuuru sa duma la ci génne yow maam Ndiaye sama ak ñu mel ni yow waaye dama ni wax sànceb ne li mu sol yi euh, sëñ buur ah, kon kay boo ne sol yi sunu borom bu daan wax yut nin alayhin min jàllaabi hun na hmm. sëñ buur lu mel ni bés yu taaru yooyu ku ciy dem waaye waay na nga sol lu jot na nga muuru ba ni malaj na nga taaral borom bis bi nanga ko jox gëddaam mhm. nanga ko jox fam ak i àqam loola farata la soraala législative yi jàpp ngeen ni Sonko dina am majorité li tax nga bëgg maa toog ci ay Sonko ak Jomaay soob ma ba ci mairie wi si waaw baax na soraala euh, affaire bii mu ngi bëgg a tukkal àddina te man garabu ngóora li ma ci xamoon mooy yii nga daan joxe mooy pompe euh, pomade bi yokk wala bee ñuy boole ak 3x di ko naan Mm-hmm. mais galañ gi fan yii mu ngi bëgg a toj àdduna bi te man comprendre ma man. sëñ bu dama la woon galañ yi dooy ki koy comprendre yow ndax loo comprendre wax ko sëriñ si sëriñ si piraat ko. kon teg ko ci taabal ji kon man damay nettali ma. seen liggéey lan la. informer juste et vrai. waaw jeex na. loolu kay mën naa am ngeen di informer lu baax mën naa am ngeen di informer lu bon man nag samay garab yàlla daa dogal ni fa ma koy jëlee na ma koy defee sëñ buur kooku man rek laa engagé. mais galañ kese ak ñi jox mais galañ kese lu mu man ci góor waykat bi de galan yee koy wayloo moom nee na heure bu ma ko woowee mën na maa way sax nag waaye xam nga sonaala moom càkkaay yee ngumbaa yooyu da caa bokk man bi de bi ma ko fekkee man loolu la <laughs> waykat bi nee bi moo man moo ëpp doole guddi yi de mais soxna dama bëgg ñu wax ci galan gi scientifiquement sëñ buur mhm. galan gi buñ la taqee xala moo ci sut moo ci man mhm. soo baaxleetul moo ci sut moo ci man sa soxna itam boo ko daan jox loo xam ni doyul moo ci sut moo ci mën mm-hmm. bu dee da nga daan yéegit yegg fa nga jëm maanaam gaaw a daanu waaw moo ci mën moo ci sut bu fekkee itam daawoo mën ñaar ci guddi gi te musoo mm-hmm. mën ñaar galen gi mën na la yóbbu ba nga am sa trois yu saf-saf mm-hmm. soxna si bu xëyee bu la neexee bañ a la joxe dépense da koy togg boo ñëwee ba mu neex def ba mu baax waaw jigéen ñi nag dañoo bëgg ku leen di yéeg ba fajar ah waaw loolu day moom dara newu ci de wax dëgg yàlla loolu moom tubaarkàlla sama xalaa xaari xii na dara newu ci kay mais galañ gaa nañ dafa cher nag soxna Aada sëñ buur galañ dafa démb rek woo nga ma ni ma naa ko wàññi waaw galañ dafa cher yàlla xam na duma ko wàññi ah, bëgg jël la bëggul ba fi xam nga li tax li may def man ci galen gii maa ko xam ak yàlla sunu borom ah, Soxna Aada day wax ni buy ñaan day xool ci digganteem ak boromam la ci àq ak yelleef mu nekk ca waaw ah, doo ko wàññi tuuti rek buur li la defaral sa kër tàggatal la sa soxna ba dootul xool leneen keroog ano yii gis naa ci benn xale bu jigéen moom nee na mm-hmm. am na jëkkër waaye am na far soo gi ngeen baal ma ci kàddu gi mais damay jàngale rek subhanallah dama leen di wanal ni lii ngeen di jëfandikoo ba mën ni ngeen war a mën a mën ci seeni kawi lal mm. te góor yàlla di ko mën ci liggub lalam góor ñépp la war ndax kat sunu borom moon nisa akum xar xarsun lakum fa'tumanaas jigéen ñi kat seeni tool lañ dee leen bay di góob mm. waaye ca ñam ko wax ñi nga xam ne dañoo daganante kon dara gën tamit yi nga takk sa soxna ci farataak na nga war di ko bës ba mu koy yëg ci digg lal te munoo ci mm. dara mm. yàlla ko kooka bu ko xelum saay saay jàppee da koy wuti ji feneen muy la ndaw sa wax nee na moom ex copain moom fam ko yegg góor gi ko takk mënu ko faa yegg waa kon soxna aada bu ñëwee jële leen ci loolu da ngeen a war a bég lu ma leen ko weccee war ngeen koo mën a jël nag ndax liy dëgëral néegi di dëgëral lal bi ba boo kilifa ci këram baat laa mag kàddu bu ko fa ñàkkee amatu fa dara te moom jël rek te fii nag koo tëddewul tëddegu neex bu xëyee yéen doo laa ci patu ba ngoon jot xam nga li ma la wax waaw dëgg la de ay jamono ci ginnaaw biñ fi téyee say mbir kan yow tama defaral la sangatu nen nga fan yooya laata ngay toll fa nga war a toll yaakaar naa ne àdduna meloon na luy tukki ci yow booba maa nga cees bu ma ñëwee lañ ko lijjanti. yàlla baax na da ngaa fas sa kanam gi ne ndeysaan. dama yeete rek. yàlla baax na. dama yeete rek. pommade bi bëgg naa ci benn. ndax li may wane. Mhm. ah am njàngale la. te kat kersa jàngale mhm. ku gis nag soxna Ada nii mu koy jàngalee ndax am na kilifa gu nekkoon barki de moo njaay ci bi ñu génnee vidéo. Mhm. dëkk ci côté almadi gi. di ma waaye deux heures du matin trois heures du matin dangaa yor jëkkër yoroo jëkkër pour mu leer damaa yor jëkkër damay sëy bëggante wu ma nobante wu ma xoolante wu ma madame la feebar bi dal nit ñi dalu ma man bañ naa ko ba du may yëg sama bopp leer na leer na waaw gone gu ciy réew maa la gën a réew déedéet soxna si gis nga gileem gii ngay gis waaw gis nga pamaat bi waaw gis nga jigéen ji gis nga góor gi waaw gis nga ni muy watete kii waaw lii sëñ buur loqati ci ngay jigéen ni ko pegg ci sa awra kon biir pomade yokk bi pour jigéen ñi la. déedéet chaque jour ma lay bett boo génnee fii rek ma génn fee. nga ni lii bu ko boo boo nga ni boo loqatee. boo loqatee ne ko ko tegg ci fa sa côté awra nekk ci côté coppret bi ngeen baal ma ci kàddu. waaw ci jigéen ñi waaw. boo ko ci nasee jeex na. boo sëyeeg sa waay gis nga euh, ni muy diree gileem bi. noonu nga koy diree. waaw waaw akay neex. loo wax monsieur ne wii. ndaw si ma woo ci suba dan ma soxna Adama la ma doon jàmbat jeex na kenn waxatu ko. danga ni ma woon sa boroom kër dina la déggal dina la topp te dina la jariñ te lu mu xam wax la te bu ma la nëbbatuwul ci kàttanu yàlla falaa toll mu ne ma lii may wax ak yow kay mooy waxu xale yi samay njaboot nañ juboo waaye man moom xel ba laxturi saalaat <laughs> man soxna Adama ma ne ko ba laxturi saalaat <laughs> buur maa ne bii tàngal bi moom xam naa ko moom. tàngal bi xam nga ko say soxna ñamoon nañ ci. non bii sax témoignage am daf ma fekk fii ci kër ba pare say soxna yéen ñamoon nañ ci jëndaloon nga leen ci sëñ bi man lu baax rek li tax doo wax ak nit ñi dëgg. non man lu baax loolu nga foowee soxna da man géwél laa gis nga lii nii sëñ buur hmm. di màcc comme ni may màccee man fraise nga xool di nga tooy di nga neex yow jigéen ji yow jigéen jigéen daa war a tooy nag man bu may dugg ci góor ñi di dugg ci góor ñi di du ma leen may dara ba sës hmm. bu ma geestoo damay wax ak jeeg gi dëgg nga ne jigéen jigéen bu tooyul neexul jigéen bu bariwul ndox neexul dëgg la de bala ngay mën lal dëgg sa borom kër nga di ko satisfaire dangaa tooy neex dëgg la leer na dëgg la sëñ buur siwa bi ma génne léegi hmm. pour mu bañ la bett déedéet balaa maa ñëw foofu ah euh, maa ngi ci ngóor ak jigéen ba tey hmm. kële nit ñi xam nañ ko mhm. mooy bi ngay booleeg 3x bi waaw bu saf-sàpp bi ma xool ko soxna Ada waa jaan gi. baat da bëgg a yóbbu. 3x ngoo koy booleel sotti ci <laughs> rek def si frigo. Eh! yaay raw lekk ba suur. Ah. xeli sa kaasu ataaya naan. jaaxaan mel ni xale. weexul foroxul naqariwul. waaye lii day meer moom. lii li muy ay ay di garaaw garaaw lii ko gën a dee. lii dara jëye eh! danaa ko yër de coow coow. barke yonent yàlla Muhammad lii heure bu ma ci ëwee quantité. wallaay azim du taxaw. mais man lii man man liberté dafa des sama bopp nag. lii dina des ci bopp ku ne gis naa nga yor nga yor ne sonaada mais wallahi azim lu mel ni mosoo lii dina des ci bopp ku ne. gis naa nen bi gis naa pommade bi gis naa sungu gis naa leneen ak leneen. Mhm. mais lu mel nii maa ngi koy soog a gis sama àddina. sëñ buur li ngay takk ci sa ndigg di mel ni gone guy doog a juddu di mel ni ku jël jakarta bi mel ni fasu course loolu la góor ñi soxla. waaw loolu de la góor ñi soxla. voilà. mën nga ñàkk dépense jeeg yi muñ ñu feebar nga war leen a faj dañuy muñ mm-hmm. nga war leen a jariñ ci or ak yére dañuy muñ mm-hmm. waaye lal bi kenn du ko muñaale sëñ waaw ay duma ñoom duñ ko muñ déedee dañ koo bëgg moo tax jóge seen kër yaay ak seen papa yi la sa kër yaay am na te duma yi nag bu neexul woon yàlla du ko bind dëgg la de walaay dëgg la mën ta ñàkk de walaay dëgg la fi ne moom ku fi mus xorom di nga dund mm. te kuy mus xorom di nga ni dungu guddi Mm. loo nekk nekk kilifa nag. waaw dungu dungu kon nag kilifa yi ci ñam ñoom xam nañ li ñuy ñam lu mu doon. mais vraiment lu efficace bu leen kilifa yi nax. waaw soxna Ada leen koy jox nag par guddi. waaw dëgg la bu suuf seddee dañ ko fi jël. dëgg la kon yéen gone yi nag afalaa taaxilun xalaatu xalaat. sadaqallaahu l-aziim. sëñ buur sama siwo bi deux cent mil laa koy wecci ko waaye nit du ko laal dellu ginnaaw Soxna yow tamit foo teg loolu ba def ko deux cent mille Soxna ak dëkk bi dëkk bi ni mu jomaayee siwo bi ñamoon ñamoon nga ci sunguf si waaw d'accord mais dëkk bi dafa jomaayee nag fi mu ni nii Soxna waa loo xamante ni boo boo bu fekkante ni danga koo laal jomaayee ak Sonko sori la ah waaye Soxna gars yi moom <laughs> benn problème la ñu am ah. nenañ say garab baax na waaw say cangat wóor na baax na waaw loo digaale ak nit ki yàlla seet na di nga ci def ba def ci yëkk ci ñaar waaye leen rek la ñuy jooy waaw seer waaw mais sëñ buur garab yi dina seer semaine bu jot soxna Ada dina rey xar te ndawal gi ñoo koy bokk waaw bëgg nga ndawal bëgg nga ginaar bëgg nga jongoma ndax yaa ngi ci trois femmes waaw diggante soos day soos waaw ak jongoma ak xaalis waaw dama ca yàgg te dese na la benn waaw te benn bi nga war a am maa la ko war a may soxna Ada yaa assumé lii ci kanamu doomu aadama yëpp. man maa la koy may man soxna Ada. kon yéen ña ca kër ga les trois mousquetaires. déedéet wax ji ki nga xam ne man maay premier njëkkeem. bu ma attaqué it amul problème sëykat la. les trois mousquetaires daal nañu xam ne kon yow yaa nekk sama ginnaaw na leer. waaw yow faaw nga am quatrième femme ndax góoru géwél nga. dan lay ay ayloo waaw dëgg la de te fekk fas gee ngi góor gu baax kan nag dañ ko war a ay ayloo xanaa danga may may boobaa ci fas gi génn fas bi laay demul nag bi laay li ma lay bëgg bëgg bëgg yàlla seere na ni mënal dem nag wax dëgg yàlla <laughs> mais soxna euh, fi may tëjee mooy gars nag foog ngay def ci ñoom tuuti xéewal xéewal dëgg la xam nga yow dangay ngay yaayu gars yi dëgg la ndeysaan yàgg na dëgg la des fois nga dawal tuuti yërmande dëgg la waa yow de boo seetloo soxna Ada ku ñàkk dugg na fi ku am dugg na fi. waaw d'accord naa loolu. Hmm? waaye lu mu doon rek norme yi bu yéegee nga xam ne jamono. toll noonu problème bi soxna Ada. parce que soxna Ada daa gën a féete xale ci réew mi waaye daa gën a bëgg ñëpp prouver. wutin bi moo metti waaw kay ndax nag li muy soxla yëpp dama koy def. gis nga man samay garab bu jaree ka koy jëli ji danaan dungu dama koy fay. nga ne ku koy danaan dungu dama koy fay. sëñ buur ndax xam nga ne am na garab yoo xam ni ka koy jëli danaan dungu dara du ko wër am na garab yoo xam ni boo koy jëli danga fay laytaayal xaalis. am na garab yoo xam ni boo koy jëli jesneer bees tàq ngay sol ak parfum bees tàq tegtal yi may jëlee garab moo metti li sonalul nit ñi dama sonal muy ngor ak jom bëgg naa ku ma song ma satisfaire la ku sa aajo war ta faju yàlla bu ma la xam bëggeewu ma lu ma la wax rek am na lu tax te sëñ buur nag sa ñeenteel bi buñ koy tax dañ ko war a mën a dugal ci kër gu baax ah <laughs> kon boog kon wa axiru daawana an alhamdulilah sëñ buur waaleykum salaam wa rahmatullah xam ñëpp loolu sëñ buur sëñ buur sëñ buur